tàmbalee Kajoor ak Mimi moom nag li mu bëgg rek mooy ñu annuler euh, si bi nga xamante ni jot euh, président Macky Sall jot na ko fi def. mu ñu dénk wàllu yoon tey jii mu nekk ci euh, nekkoon mbokk ci opposition bi euh, ca jamonoy Macky Sall tey nag la mu bëgg mooy boobu lépp euh, amnistie ba ñu voté ca assemblée nationale muy baal lépp loo xam ne jéyal te mu laale woon ci manifestation yi nee na nag loolee warul mën a nekk ginnaaw lu toll ci juróom benn juróom benni juróom benn fukki nit ñàkk nañu seen bakkan ñu ay ndaw yoo xam ne ñu doon manifester euh, nee na defuñu dara lu dul manifester ñenn ñi ñu daal leen a euh, tëj kaso ci anam yoo xam ne euh, jaarul yoon loolu yëpp ñu bëgg xëy rek daal di koy niilal moom nag nee na àndul benn yoon ci loi boobu nga xam ne woote nañ ko moo tax la mu bëgg mooy régime bi fi nekk tey mu fexe rek ba daal di dellu siwaat ne amnistie boobu ñu jël nee na nag faaw ñu daal di doxal dëgg. bu fekkee nag euh, kii nga xam ne moo fi nekkoon njiitu réew di yi Sall sax laale na ci yoon dal di def liggéeyam ndax nee na Euh, jàmm balaa ñu koy wax day fekk dëgg euh, am jàmm ci kaw dëgg moom lay euh, lalu loole la kii di Aminata Touré daal di gëm daal di nay fàttali sax <coughs> maanaam diggante Pinochet ak ñi nga xam ne ñoom ñooy argentin yi naka noonu Dadis Camara ca Guinée nga xam ne jamono ji moom it mu ngi jàkkaarloo ak yoon loolee waral nag mu ne Euh, bakkan daanaka dafa fort. Mhm. ba ku ko faat rek faaw ñu fexe ba euh, lépp daal di leer. bu nu jógee ci loolu ñu wax ci li nga xamante ni moo di production de farine mu mel ni à partir de ce lundi. du am. coow li jib na nag ginnaaw ba ñu ko euh, wàññee ba ñu wàññee njëgu mburu bi Pulse Sénégal moom moo ci daal di euh, addu njëg li delluwaat ci cent cinquante ginnaaw bu ko gouvernement Sénégal euh, dogalee di tey jii. nee nañu nag ñi nga xam ne ñoom ñooy defar farine bi fii nee nañu dañuy banque seeni yoxo lu ko waral mooy wàññi bi nga xam ne euh, moom moo tukkee euh, ci euh, conseil national de consommation ba ñu amaloon le 21 juin 2024 bi weesu ba ñu jugee fa daa di euh, wàññi li nga xam ne moom mooy njëgu farine bi jëlee ko ci dix mille deux cent mu tabbi ci quinze mille deux cent mu mel ni lu toll ci quatre mille francs moom la ñu wàññi suñ sukkandiku nag si ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy meññee di liggéey ci wàllu euh, farine. nee nañu wàññi bi ñu wàññi mi ngi euh, tombe ci jamono jo nga xam ne euh, farine bi dafa yokk euh, ci fa ñu koy jéggaane tollu na sax si trois cent euros ci yokkute boo xam ne nee na yokku nañ nee nañu yokku na ko looloo waral nag ñoom ñu ne mënul yokk fee ba noppi ñun fii ñuy wàññi ndax donte sax am na lu ñu teq ci lii di TVA muy. Euh, euh, mille trois cent cinquante cinq nee nañu loolu rek moom moo génn ci li ñu génn ci TVA yi mu des deux mille six cent quarante cinq yoo xam ne euh, ñoom ñoo ko war a fay donc mu mel ni rek quatre mille yoo xam ne wàññeeku na état bi moom moo ko waroon a feccali su ko defee mu bañ a am njeexital ci ñoom te 4000 yooyu ñu dindi ci njëg li daanaka ñoom ñoo ko war a gàlloo te nee nañu loolu duñu ko mën a dékku ñu wax ci aj Màkka gi Kajoor lu toll ci 60 pour cent des pèlerins sénégalais euh, dañu leen confirmer ni que am nañu lii di Covid 19. ñu ngi koy waxtaanee Seneweb nee nañu nag euh, aj bi euh, jëwriñ mi ñu dénk wàllu wérgu yaram moom dafa mu ngi woon sax fële ca ay AIBD ñu def fa nag ay matukaay yu am solo ngir daal leen saytu ginnaaw ba ñu ajee. ba noppi aéroport <laughs> ay Léopold international Blaise Diagne nag ñoom foofu la leen dalale dar leen defal ay ay test nag coronavirus mu mel ni rekk Euh, bu ñu jëlee ci euh, li nga xam ne moom mooy vol yi ni ñu doon ñëwee euh, saa su ne dina am lu toll ci vingt jàpp soixante pour cent. Mhm. si ujaaj yi nga xam ne dañu indaale li nga xam ne moom mooy mbas feebaru coronavirus looloo waral nag ñu daal di samp ab dispositif ngir daal di leen saytu daal di leen itam jël en charge. bu ñu desee ba tey ci aj gi Arabie Saoudite ñoom nag ñuy xamal ni que. Euh, ñi génn àddina ci aj màkk gi bari na. bari na euh, France 24 ñoom ñoo koy xamle ndax boobu ba léegi dañu defoon tekki tekkaaral ñoom autorité saoudienne yi ginnaaw ba ñu doon limee ay nit yu ñàkk seen bakkan te tàngoor bi waruloon ko boobu ba léegi nag ñu doon xaar ñoom ñu génn joxe. Euh, nombre officiel boo xam ne moom mooy xayma ñi fa jot a ñàkk seen bakkan nit ki euh, démb nag ñoom mujj nañu génn daadi ci addu nee nañu nag lu toll ci junni ak ñetti téeméer ak benn nit ñoom eh, di ñuy ay ujaaj ñoom ñoo ñàkk seen bakkan foofe eh, ca Arabie eh, Saoudite te dara warul koon itam lu dul tàngoor waaye buñ ñu sukkandikoo itam ba léegi ci autorité saoudienne yi nee nañu téeméer boo jël mhm. ci lim boobu nee nañu juróom-ñett fukk ak ñett yëpp Euh, daanaka waruñu woon dem aji na maanaam amuñu autorisation pour dem aji su ko defee nag ñoom ñoo demal seen bopp euh, daanaka parcourir ay distance yu sori euh, ci tàngoor bi ak yenn ñàkkum confort ndax ñëpp xam nañ ne aj bi dafay métti te amuñu woon itam benn encadrement mhm. donc loolu la ñu joxe comme explication yu war a tax ba 83 pour cent si ñi ñàkk seen bakkan ñoom ñu daal di koy ñàkk loolu nag moom la euh, daanaka autorité yi daal di xam ne AFP sax moom mu ngi doon euh, lim lu toll ci mille cent. Mhm. ci ay euh, nit yu ñàkk seen bakkan ginnaaw ba mu jëlee ay information si autorité yi naka noonu si diplomate yi ngir waaye tey nag. ñoom bilan bu bi moom mooy euh, mille trois cent une personnes mhm. ñoom ñoo daal di ñàkk seen bakkan te ñu nekkoon ay uujaa jàppaleen nag ci lim boobu mhm. Sénégal mu ngi ci compté ñett ñetti nit la Sénégal ñàkk ci ujaaj yi nga xam ne ñoom ñoo fi bàyyeekoon dem euh, doon aji merci beaucoup Kajoor ñu jaajëfal euh, bu baax a baax mu nekk lu métti métti mais di leen ma saw itam euh, bu baax a baax permettez-moi ma dalal Amadou mu ngi ci plateau bi Amadou Tall maa ngi lay nuyu. fay bu baax a baax a baax am mbégte contenté fekkaat ci plateau bi nuyu aussi ñi nga xam ne ñoom laa bokkal plateau muy Kajoor Cissé mais aussi Pape ak nos chers téléspectateurs. dalal ak jàmm. sa sa élégance am na solo ah ñu waxtaanee actualité bi waxuma dëgg. ah Kajoor. Très belle chemise. Très belle chemise.